bu xëyee doxantu ñëw fii ñu lalal ko basang ci si daada ci walla wala pilaan bi ci rat gi mu toog sama baay toog nit ñi liggéey fii Abdoulahat Jeng Baraat ñoom Abdoulahat Touré ñoom ñoo nekkoon ci daara ji nga xam ne bi mu ñëwee ne sama baay dama bëgg fu mu liggéeyee Sëñ Tuubaa te yow rek dañ ne ma yow rek yaa am fu ma xaj sama baay ne ko doomi Sëñ Tuubaa de aw ma fu xaj waaye li ma am danaa la ko jox Abdou Lahad Ka di grand opérateur économique nekk ci dëkk bi nga xam ne moom moo di Touba waaye it di baykat bu mag boo xamante ni mi ngi bayee ci dëkk bi nga xam ne moom lañu naan Béyti Dia firnde gi mooy li muy produire chaque année ci mbay mi takku na lool day bay dugub mboq sésame gerte ba ci ñebbe nawetu atum 2023 bi nga xamante ni moom lañ dënmal Abdou Lahad Ka waajal ko bu baax a baax ci fàggu jiw woo xam ni jiw yu yaatu lay doon mu fàggoo ko ca bitim réew indi ko fii ci Sénégal ci dëkk bi nga xam ne moom moo di Touba. tànn ay soxna yoo xamante ni ñoom ñoo koy tànnal jiw wi ngir mu mën cee am jiw ya gën soxna yi nga xam ne nag ñoom la jël ñuy tànn li nga xam ne moom moo di jiw wi da cee créer ay emploi ndax ñoom ñëpp dañu leen di fay bés bu yàlla sàkk. mu nekk liggéey boo xam ne ñoom jigéen yi gis nañ ci seen bopp bu baax a baax. loole nag moom la nekk doon waajal fan yii yëpp ginnaaw bi mu def ko ci dépôt yi nga xamante ni moom nekk ci caaween fas yéene bu ci mbay mi ci nawet bi nga xamante ni mooy nawetu 2023 2024 di ñaan yàlla baaxkel ko mu nekk nawet bi gën ci réew mi Abdou Lahad Ka nag objectif am bokk na ci bokk ci ñi nga xamante ni ñoo ëpp lu ñuy produire ci réew mi nga xam ne moom moo di Sénégal ndax am mbay moom rek moo mën a suqal mi réew min ka arumul yawma an akuna mimman abahu li xayrika rukuna